sene info dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye jirë ngeen jëf footballu réew mi mel ni fitugu mbër sànni ci dénd bu Afrique bi moom la yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy di baax keba yaay ba woon ca Cameroun Sénégal la ko jël Coupe d'Afrique beach soccer 2022 bi Sénégal la ko jël CHAN bi woon keroog ci Algérie Sénégal la jël journal bi jële ci jàngat ci ne Sénégal teg na tànk ci footballu Afrique bi ñetti coupe football yi Sénégal jël ci dénd bu Afrique bi ñoo ngi ñu ràngale ci xët mu njëkk Vox Populi njiit président Macky muy waxee ne li tax ndam yi neex moo di coupe bu ci nekk ab entraîneur local moo ñu ko andil anki dina kay nañu Sénégal teg na tànk ci football bi ci déndub Afrique bi soleil national ne ko Sénégal buy gagné ca la ñu toll Lion yi gagné CHAN bi keroog samedi ci Algérie soleil national nee nañu footballkat bu ca nekk président national jox na la prime spéciale bu toll ci fukki million ak terrain 500 mètres te ni mu ko defee ak Lion yi fi gagné woon ku ak pàkk bu toll ci genn wàll hectare ci ndakaaru ba noppi it xamal na leen programme bu ñu fas yéene doxal ci réew mi ngir dooleel football local bi bés bi le jour nañu guléet suñum réew di Sénégal waa balendoo ñetti coupe d'Afrique ci wàllu football ne ginnaaw kan bi woon juróom-benn fan ci weeru février 2022 Sénégal am na beneen coupe ci wàllu football mu di CHAN 2023 bi journal bés bi le jour gis na it ne Aliou Cissé mi yóbbu gaynde yu mag yi ak Pape Thiaw mi yi ñoom ñëpp fajal nañu waa génération 2000 seenu mer joojo fajul joojo wala fi nee nañu mer mu yàgg la diggante benn bokk yaakaar ak Pastef l'observateur toll ci xeexu mbooloo guerre des foules ca la toll ubbil yéenekaay bi ginnaaw meeting bu mag bi waa Pastef defoon ca Kër Massar waa Benno Bokk Yaakaar ñoom it wane nañu seen bopp démb ci dimanche ji ca Pikine ci meeting bu mag mobilisation bu rëy l'Observateur ne nañu moom la dund démb ca terrain CFA ba ci jidde caaroy kaw muy Tëngéej di Parcelles Assainies Kër Massar Mbao ba Guédiawaye fu ci nekk la ay militants jóge ngir teewe si meeting bi deux ci ngoon xamalee gaayam yi ne wan ngeen waa Sénégal gi yépp fi majorité bi féete fi doole ji fare source waa di ñu xamal ne mobilisation bu réy bi waa Benno Bokk Yaakaar def démb ca seen meeting ba woon démb ca Pikine loxo Fatou Diané feeñ na bu baax baax ca mobilisation ba moom ministre de la femme yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne li mu yóbbu ci aw nit ca meeting ba kenn xamul nu mu toll Walf Quotidien nañu majorité présidentielle bi mu di ñu ànd ak président gaañam ñi gàtt geen gàttaani geen koy faj ku leen cokkaas fayu leen bu leen nangu kenn di leen xoqatal te suñu réew mi muy Sénégal kenn mënu ko déstabiliser journal l'info nañu Amadou Ba indi na riposte bu saf sàpp ci defante gi Ousmane Sonko woote Le Quotidien nañu ci lu jëm ci élection présidentielle yi 2024 yi Amadou Ba battre na carte gi kupp na fay na nee na benn plan la am Macky Sall la tudd mooy suñu plan 2024 mooy suñu plan 2029 le mandat na Macky Amadou ñaar la wane ca meeting waa Benno Bokk Yaakaar ba woon ci Pikine mu di fermeté ak loyauté poñse mbuur soow mu di alliance réew mi bu Idrissa Seck ak APR bu Macky Sall le nee nañu poñse baa ngay neex ba léegi àllarba ji di ñëw président Macky mu nga jëm ca kees di benn dëkk ñaari gaar yéenekaay bi ne ñun jiital conseil social ak environnemental borom parti réew mi mooy dalal njiit réew mi ca kees la yéenekaay dolli ñu ci ne moom attribution projet cent mille ba ñu fay waxit war bokk ca la waxtaane ca nganug Macky Sall ga ca kees kenn ci doomi kees yi ràññeeku ca kees di Mor Gueye sopp na bi di promoteur immobilier yéenekaay bi ne nañu war naa ci ñi président Macky Sall war a waxtaanal ca projet ba ba tax na moom ak mouvement bii di sàmm li ñu moom laas ne nañu ñoo ngay waajal bu baax baax ñëw président Macky Sall ca kees Doudou ministre bi ñu dénk transports aériens moo woote ak mbaax di woote ak njub ak ak sell nit kooke day fexe moytu ñu koy tudd di tudd ay jacuzzi ak i salon de massage